na fii sa partenaire xaw ma ma ngi yéen a koy nekk ba léegi daf mel na nit xaw ngeen sorianto d'après say commentaires si Facebook damay jàpp nekkatu leen wala bokk am na yaa quelque chose acte maire yi boobu noo ko jàngate xam nga man awma problème ak mair hmm. man problème mu Touba laa am maire sama baaya loolu nag ab cër la bu ñu teg nee hmm. lii sama digg ak sëñ Touba laa ci jaayantel du ko liggéeyal ci biir dëkk bi hmm. fii nag dafa am ñu fi nekk ñoo xam ne dafay mel ne bëgguñu dëkk bi dox wala bëgguñu lu baax ndax boo fi dee nekk sax ci wax dëkk bi dañ lay jàbalise te man loolu intéressé wu ma man li may wax yàlla rek laa koy seedale ku ci mën gëm gëmal ku ci mënta gëm nag noo ko jàppe noonu baax na mais ci wàllu boppam moom ci jëmmam duma ko ci wax lu ñaaw duma ko ci def loolu jël naa ko teg ko ne ndax kóllóore geeg bàyyi ji waaye ci dëkk bii moom li ma ci bëgg wax dinaa ko ci wax kon loola mooy dox sama diggeeg moom ba tax xëy na mu jàpp ko mais man jàpp ko dara tey laa ko a jàpp tey laa ko gën a euh, def loo ko doon digal euh, man li may wax rek mooy euh, dama ñëw def déclaration ci Daaru Marnaan Babacar damay wax ne ci taarix amul benn dëkk bu Serigne Touba def juróom benn weer di jiite maam Thierno Birahim di ko di ko di ko le xaamal waxuma la sax maam Thierno di ko le mais benn dëkk ci histoire benn dëkk buñ ne Serigne Touba def na fa diir juróom benn weer te génn ko amul bu dul Daaru kon Daaru Manaan dëkk bu Serigne Touba fonkoon la jël ko di fi fekk rakam ji baax ja maam Thierno Birahim lu nekk di ko fi def ci histoire Daaru Manaan ba ci sax biñ bi ci ñaareelu tukki bi ci histoire ci liñ ci wax lépp dégg ngeen ko fii la amee ci Daaru Marnaan tey jii bi Serigne Touba di jóge ci géej gi ba rakkam ju baax ja di ko defal ngaram gu rëy ga maam Cheikh Anta bi mu jógee ci maam Cheikh Daaru Salaam fan la jaar Daaru Xalimul Xadim dikk Daaru Marnaan continuer dem Babacar su ma la waroon na la fii la Serigne Touba jaaroon ba mu jógee ci géej gi da naa ma déer loolu mën ta nekk tey boo ñëwee ci Daaru Manaan li mu ëmb ci intervention ci suuf li mu joxe fan moo ko ci am sapeur pompier dañoo dagg joxe gendarmerie dañoo dagg joxe poste contrôle bi ak fii ñu def tey brigade spéciale bi gaaru ceer bi ñu dagg joxe préfecture ñu dagg joxe bu ñu laajoon suñu kër bopp sax ñu joxe ko te Sëñ Tuubaa tax ana lan la ñu séddale ci dëkk bi lu Daaru Manaan am fii laa taxaw ne tëli bi maire kenn waxu ko pour ñu defaral ñu assainissement xam nañ compétence maire xam compétence état bu doon te ne président Macky Sall yónni na fi Abdoulaye Diouf Sarr yónni na fi ba Farba Sarr yónni fi ku nekk ña danañu defaral suñu euh, euh, assainissement bi ba léegi dara changé wul mais dama ne xanaa maire war na mën a jënd benn mëtt pomp kon bu mu ñu tegal fii ci deux voies yi ci autoroute bi bu ko defee mu ñu espérer ndox mi duñu ko yóbbul ci regard bi lii laa wax ñu jàbbali sama ak moom ne ma ko kii mais man loola mooy wax tey laa ko gën a mën a wax tey Abdou Lahad Ka maire de Touba bu ñu mën ko defaral assainissement parce que compétence am mayu ko war nañu mën a jëndal benn machine pompe respecté ñu ko ñun waa Darou Manane dégg na la sax de parce que gis naa après citerne yi ñu ngi ñëw quoi di seen oto yi ñu ngi ñëw di manque affaire bi loolu de solution de solution def nañ ko daaw te bu ñu recensé woon lañ fi ëpp na 1000 tey jii liñ fi gun lépp booy xool mën na 200 si ñu xaalis la yàq dama ne Babacar gis nga nit da ngay toog di xalaat ci li nga xam ne man nga ko def mu jariñ population te du yàq alalam mm-hmm. lii ñuy ngàcce fii ñoo ko moom buñ fa nga tey bu yàlla ji tawoon fees dellu ñu ngàcce fa cinquante oto suñu xaalis si ñun tey machine pompe bi ñu jënd fii yóbbu ko fee ci regard ba lépp matul 10 millions tey état mairie Touba bi sëb 4 ngay subventionné ay màggal daaru mu amut Kazu amut sëñ Abdoulaat amut daaru salaam amut màggal suñu Abdou Xaadir amut genn màggal amut waaye yow ana xaalis yi nga daan jël di ko jëndee ceeb ak di ko def ci yeneen di ko di ko def ci social di ko yóbbu ci màggal yooyu ana li nga daan jàppale nit ñi 4 milliards yi ngay am mu érosu dëkk bi di ko gagné. waaw loolu fu mu jëm ci population bi waaye 4 milliards yi yéen seen mbokk yéen mbokk loolu dama ne moo tax moo tax 4 milliards yi. mais xam nga jot benn waaye def na ma yéen du leen fay impôt ma ne ko dëkk fay fay impôt. di fay mm. patente. Mm. dañuy gis oto balee ba mu set ñu sànni poteau lampe ba leen tiim bu lakkee dañuy gis ensemble maire mu ñëw changé waat naa ko ci Serigne Touba laa ko seedee Babacar du ma fen musuma gis encens maire fii ci mbedd yii di sensé bi lamp suñu lamp bu lakkee mbedd ñoo koy sance ñun la ñu war a fay patente war koo faylee moom la ñuy jël di ko def ci dëkk Serigne Touba bi am na ci poto yoo xam ne sa daaru ma naan ñoo ko defar ñoom ñoo jël suñu xaalis def ay lamp tey damay wax ne ku mënta indi éclairation mën a def maintenance état bu la mayoon tey 100 lamp ci sa biirub bu pile war nga ko mën a sensé fekkente ne yow boo génnee fi dem ci yenn communes yi seen mbalit yi ay otaa koy recensé di yóbbu ñun ay borom sareet la fay weer ñuy jël suñu mbalit di yóbbu mais kooku looy fay patente ak loolu lépp boo ko xoolee motu sax journée 100 te ñun bis bu nekk ñu ñàkk 200 par mois est que patente mën na ko patente motul loolu pourquoi pas ñuy jël suñu 1000 francs di jox Touba ci kanam bu ñu ko laajee ñun taalibe yi xam nañ fañ koy def bu doonte ne bu ñu laajee suñu alal delloowaat ñu ko buñ ñu laajoon 10 000 par jour ñu joxe ko ndax sëñ Tuubaa jaral nañu ko ci dëkkam bii lii mooy suñu problème ak moom te ban tëli moo ëpp importance ci deux yi nga xam ne moo jóge Mbàkke dugg ci jaar Daaru Manaan dugg ci Tuubaa ban tëli moo ko ëpp importance xanaa tey lañ ko sàggane mais képp yépp gan buñu ma sàmm ba ci président ca Abdou Diouf ca Senghor dugg ci dëkk bi fii nga jaar tey est-ce que jaadu na nit ku ne ab étranger damay visiter ji nga ne du ma jaar autoroute bi nii jaar nga ñëw ba fii ci dëkk bi ak ni mu rëyee nga ñëw war a jaar fi ñu lay teggiloo am ndox ah, mais sëñ bi loolu ak xeebat la ko Abdou Lahad Ka dama ko koy waxaat mu di ko dégg lii mooy suñu problème man Babacar na dëgg la nag neex ndax day sama li ma koy wax lu baax ci moom la li ma wax gën ci man la lu gën ko bëgg-bëgg nag sëñ Tuubaa ma ko gënal lu tax waaye lu ma ko bëgg-bëgg daaru manaan ma ko gënal boo négee ba mu moment bi di wax lii est-ce que amu leen ay antécédents ay jafe-jafe sa kanam wala qu'est-ce qui se passe amuñu benn problème dee naa la xoola xam nga dafa am ay gone yu nekk ci dëkk Babacar ndax yàgg na ngeen di ànd quoi est demal ci maire wat benn responsable ci dëkk bi du na la gala sama masa wax lii du ma nit kuy nettali du ma nit ku yóbbul kenn du ma yokk darajee nit di wàññi darajee nit duma ko def man fàllu demal nag ci dëkk bi ñëpp ay gone nekk ci dëkk bi yoo xam ne dañ fee nekk di eh, dugg ci groupe bi di copier ay vocal di yóbbëg di arrêter ay nit di yóbbëg boo defee benn déclaration ñu interpellé ko na leen man nag yooyu nekkuma ca ndax xam nga la moo tax sëñ Tuubaa daan teraanga di ko séddale sédd ma ca Cheikh Abdoulaye Mbacke mbaax ma dafa daan wax ne kërug Tuubaa gu nekk kër sa këru Tuubaa day wecc kërug àjjana Babacar su ma deewoon tey kon gëm naa ne àjjana laa yow ndax sëñ Tuubaa teral na ma jox ma kërug Tuubaa hmm. li fi Abdou Lahad moom laa fee man fàllu waajur yu baax rek yu meññ dëkk bii ñëpp ràññeeku leen ci liggéeyal sëñ Tuubaa la fi ñëpp am maam ko fi bàyyi yu baax la fi nit ñi am te Babacar jàpp naa ne man du ma nangu naw lu ma gën du ma sàcc du ma fen du ma jëw te kenn xamuma ci lu bon du ma may suñu borom ci li ma war a nekk dong laa nekk muy liggéey ak jaamu yàlla ku ma mënta wax dëgg du ma jaxasoog yow maire nag bu fekkente ne li may wax ci daaru manaan gi ak di ko wax ci Touba di ko wax feneen loolu mooy problème am mais ko wax mais su ma leeree na ma ko waxee du ko kon c'est pas la peine pour mooy lii mooy suñu problème du leneen mais wat naa ko ci yàlla. amuñu benn jafe-jafe dala dem jàbbali sama ak moom mu jàpp loola. te loolu sax du mbir responsable man mii di wax ak yow lu nekk dama koy dégg man mii di wax ak yow boo tey ci kilifa dëkk lu nekk dana ko dégg mais kilifa dafa am grandeur booy doxee parce que tey gone yi bari nañ loolu mais bokkuñu man du ma gone guy guy santaas doomu aadama du ko def. su ma doon santaas ni dama koy tudd wax ci moom lu ma xamul wala ci yeneen ay sos lii may wax nag ku ko seetaan da nga xam ne population bi tax man ko pour mu defal ma dara sëñ tubaa teral na ma li ma war a am maa ngi koy am maa ngi sant yàlla bu baax li ma koy laaj mooy daaru marnaan gii ci dëkk bi la bokk nañ ñu considéré defaral lamp yi ñu séddale na ci daara marnaan am cër tali yi ñuy def ci biir yi yii ñu séddale tey ok yéen am na fan laa ko gis ci mbedd daaru dama ne daaru marnaan fa ngeen ko bëgg fa nga gis ni fa la gën a yàlla parce que mel yu mag yi lay jaar ah. ban fan moo ci ëpp ay xàll yu mag daal ma laa wax léegi na la fi sëñ Touba jaaroon ay tali quoi fi sëñ Touba jaaroon jóge Daaru Salaam jaar Daaru Xadimul Xadim ñëw fa boo fa jaaroon ñu agressé la te loolooy taarixu Touba boo fa jaaroon ñu agressé la te jaar fa mm-hmm. jaar sax ak sa oto kon fan moo ko fi gën a yàlla péncam daaru naan boo fa jaaroon ñu agressé la te sëñ Touba doon jullee juróom benn weeram ya maam Cerno Birahim daamal daaru du ko liqaamal fan moo ci gën a yàlla pour mu amee làmp damay wax ne tëli yi ngay dégg ñu di ko séddale ci dëkk bi fan la ci daaru ma naan am ab un kilomètre pourtant ngi def ci yeneen quartier ak yeneen dëkk te benn gënu cooy yàlla Daaru Manaan te Babacar boo xoolee ci population Daaru Manaan li regroupé même bu dee électorat digganteem ak ndaam 87 de vote moo nekk Daaru Manaan 16 bureau de vote moo nekk Al Azhar boo ko boolee day nekk plus de 100 et quelques amul benn benn village bu mu nekk ci Touba. même ci électorat Daaru Manaan li muy amul fenn fu ko ci apporté kon ñun waa Daaru Manaan lañ joxaat suñu gëdd loolu la boo seetaanee ba nu yàqu am nga ci responsabilité man nag damaa bokk ci dëkk bii Babacar daaru ma naan la gënal ma ci dëkk yëpp ma yaakaar borom daaru mu si ëmb lu cerno ma di ko xeexal ci dëkkam bii ngir li war am fépp am fa Serigne Touba nag daa ñaanoon ne ne mboolem di sàkku ci àdduna ci lu baax bis dana mës a ñëw ñu koy sàkku see fii wax na ne na makka mel fii dana ni mel ba ma ko xamee laa fas yéene sol sama dàll bi xeex ba dëkkub Serigne bi soppi ko falaa fas ne sol sama daal yi xeex ba na màkk mel ma dina mel ne xam ne ay malaaka yóbbu ko fa ay doomu aadama ak fa yóbbu ma ne naa xeex ba dëkk Serigne Touba bi soppi ko